ku xorom bi ëpp loolu sénégalais munul digg munul mënul mënul nekk ci digg bi maa ngi xool léegi léegi léegi nii ci internet bi mu ñu ne Sénégal euh, euh, l'an 2000 de l'an 2000 kon fukki at ak ñaar ci ginnaaw 143000 patients moo amoon ci Sénégal l'an 2000 ci ñi nga xamante ne recensé nañ leen euh, ci Sénégal. Euh, euh, loolu l'an 2000 la woon te ñu ne fu mu nekk nii fileek euh, at yii di ñëw mën nañu dem ba def ko 421 000 cas 421 000 cas kon xam nga alaaji lii dafa yéeme ñu demaat di waxaat ne ne dem nañu ba nga xamante ne ne que 20 000 dossiers dinañ ko tijji ay 20 000 dossiers wu malade ñu ne ne dem nañu ba nga xam ne at bu ci jot mille cas yu jabet la ñuy gis alaaji muy ñaata 2000 cas mooy ñaata sax ñaari junni. Mm-hmm. yooyu <coughs> dafa yéeme te euh, fu mu nekk ni toll nañu ba nga xamante ne alaaji ci kër yi léeg-léeg nga gis kenn koo xam ne alaaji da danga ko xamoon ci wér ci léppam nga xool ko doo ko xàmmee ndax jabet bi ravage yi nga xamante ne moom lay def man dama mës a gis benn bébé boo xamante ne ne bi muy juddu dañu damm loxo bi ndax yaay ji dafa jabetoon te xamu ko mu dem ba nga xam ne ëmb doomu cinq kilos presque 6 kilos biir bi xoola xale bu ndaw bébé boo xam ne dem na 5 kilos presque 6 kilos bi nga xamante ne à l'époque de la wax yëf baa ngi bëgg yàgg doom bi bi muy judd dañu mujj docteur bi damm loxo xale bi pour mën koo génnee. xam nga donc dafa ci am xale bi juddu am jabet yaay ji am jabet ba mujj gi jabet moo ko mujj yóbbu dafa ci am yenn yoo xamante ne il faut que ñu nangu taxaw seetlu suñu dundin xool li ñuy lekk xool démb rawatina démb alaaji ba nañ doon dundee xool ko xam ne loolu wére ngi ci ñu indiwaat ko waaye lii ma gis nii tey <laughs> ah te kenn bëggul wax jabe tamit dañ koy nëbb mm-hmm. yëg nga ko jëla ki ci lii allo allo waaw waaw allo tata dëggeen laa soxla waaw soxna ñu ngi lay ziar yal na yàlla nangu ziar bismillah man laa bëgg ngir yàlla rek ku ma ko mm-hmm. jox waaw loolu soo koy laajtee waa lancé du soxla sax nga yegg si fii soo ko laajee soo ko laajee waa régie rek ñu jox la ko du soxla sax nga yegg si ci wareef. Hmm. waaw ñi ngay njëkk jot soo leen laajee rek ñu jox la ko dégg nga. waaw kay yal na yàlla jàppale leen. amiin dégg nga laaj. Mhm. donc yooyu noonu dafa dem ba pare ba pare nit ñi dañ koy nëbb. maladie boo xamante ne dañu dem ba nga xam ne da ngay gis kenn ko am jabet ah dem ñu gis ko trace jabet sax mu koy nëbb dem ba nga xam ne am jabet di ko nëbb nëbb boobu nag moo tax du ñu def seen régime ak lan laaj ma lan. manqué moyen parce que feebar boo xamante ne su ñëwee ci yow di nga war a faju soo amul moyen nga fexe ba feebar boobu du ci yow moom mu nekk daal mbir moo xam ne mbir mu doy wax boo xam ne àllaaji mi ngi mi euh, am wax ni Sénégal amuñu pexe ceeb hmm. kooku wax bu yàqu la waaw dégg naa dëgg am kenn ku wax ni hmm. euh, diabète boo dul amul ay moyen hmm. feebar xamul baadoolu xamul bóoru kooku d'accord ma ci ñaari kàddu benn laa ci d'accord ñu naan feebaru feebaru ma ne feebar <laughs> moom xamul patron xamul baadoola déedéet xam nga li am solo mooy nañ jël nit ñi nañ jël seen bopp def ko rek ñuy mindeef mu yàlla wàcce mm. kenn ku ci ne di seet la la jikk mm-hmm. te bañ di bàyyi la nga juddu woon màgg ci ba mu fal la ginnaaw saa borom dëgg am na ñu moyen mm. dañ seen nangu dem mm. dañoo teg seen bopp fu ñu nekkul am na soxna su baax su am lu mu wax. ñalang. kooko laajoon xamu ko. dëgg soo gis kenn ku lekk ceeb muccaat mu caat sedd. mu ñaq tooy xëpp amul. xanaa mu sangu. dugg ci duus ba sangu. lekk ceeb ba am suukar. muccaat ma am suukar. nag ga am suukar. ataaya ba ataaya ji am suukar. boisson ba am suukar. nga lekk yàpp soo mi am suukar climatisé di la ëpp loolu amuloon jële ki ci ligne bi wér dina fi jafe alo allo oui. waaw bisimilah. Euh, euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, man la docteur Badji. ah kontaan nañu nag docteur woote. kay <laughs> maa ngi leen nuyu ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. waaw kay bisimilah Badji bisimilah. di nuyu ah, maa ngi lay fay bu baax ma doon invité ci jot ma woon ñëw quoi. pour ay raisons maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay nuyu bu baax. <laughs> thème bi ngeen jël nag am na solo lool. waaw kay bisimilah docteur. parce que diabète en fait doon nañ boo xam ne diabète bëri na. Mhm. léegi man fu mu bëggoon fële mooy ginnaaw jabet bëri na. Mhm. Euh, ñu ngi wax lii moo koy andi ban ban taxawaay lañu war a am par rapport ak jabet bi. Mhm. te balaa boobu ma bëggoon fàttaliku ci man sama gis-gis. jàpp mhm. naa am na ci ay xam-xam yu ndaw yoo xam ne. xale yi waroon nañ ko xam ci jabet depuis école primaire. muy lan par exemple ma jàppee bu njëkk bi muy lan connaissance de base yu jabet muy lan ñeenti signes yoo xam ne soo ko amee war nañ jot jabet. mooy yan. muy par exemple foo toll ngay lekk bu bëri ñu naan polyphagie. Mhm. nga dem ba lekk bëri ñaan diw dafa am appétit. Mhm. di naan naan bu bëri. Mhm. saw bi bëri te malgré lépp ñett si ñooy ànd ak beneen siñ bu bu ñu xaw a jaaxal muy lan nit ki day jeex. donc ñeenti siñ yooyu man je crois que xale yi même déjà école primaire waroon nañu ko jàngal te lii ak lii fu bu ko nit am rek war na njort est-ce que amul jabet. kon lekk bu bëri naan bu bëri tuur ndox bu bëri ba pare ànd ak ak jeex. jërëjëf. sele suñ carte d' identité rek. Mm. yéen man comme ni ñu xale di jàngee les quatre points carte d' identité nord sud loolu la ñu war a xam ne lii ak lii ak dëgg la docteur. muy connaissance de base. Mm-hmm. am na aussi ay circonstances yoo xam ne. bu mm-hmm. dalee ko jigéen ci fu may fëlee mooy ci côté jigéen ku wóorul parce que boobu def naa ci gëstu ba may def sama thèse. Mm-hmm. muy lan diabète bu ànd ak grossesse. nga wasin xale bi nga nga nga nga nga jël lor xale bi loru ci biir nga jël ëmb xale bi loru ci biir bi. loolu aussi boo ko amee rek su dul tension war nga njort est-ce que du diabète parce que diabète day faral di ko def. Mhm. deuxième point bi mooy lan mooy xam nga ko junj léegi. mooy par exemple xale bu dee da nga wasin. Mhm. xale di am poids boo xam ne àgg na ñeenti kilo wala weesu na ko. Mhm. loolu tam signe de danger la. souvent dañ naan kat ah kii kat ah xale bi taay na yem foofu alors que loolu saa yoo ko amee rek. war nga dem xool ndax amuloo jabet parce que bu feeñul léegi mën na feeñ ci juróomi at yi di ñëw mhm. te yooyu euh, mën na dem ba andi problème bi ñu andi léegi muy xale bi am poids boo xam ne accouchement bi day jafe te leneen mën na ci judd mhm. euh, donc jabet bëri na gaa mais nit ki su amee jabet mu suivre régime am normalement mën na am vie bu normal mhm.